di amat encore une fois mbecté eh, di eh, ñëwaat eh, fi nga xamanteni dañ fi dalal suñu gan ko xamanteni xamé nañ ko aussi ci langue politique gi ñu amat mbecté encore une fois di leen wax ni rek ke bok na tay ci ño xamanteni jëmmal nañ li nga xamanteni mom modi xexu di di actuellement le président de la république ñu xamé ko aussi ci fofu nga xamanteni nekkon na Euh, fa fa def liguey bu am solo muy euh, ANPEJ ñu xam ko euh, vraiment ci engagement politique certes waaye tey dafa diriger ben structure bo xamanteni tay li nga xamanteni mom modi moo di ndaw yi soxal na len waye tamit da don répondre ci ben besoin de l'emploi des jeunes bu pressant bo xamanteni ni na fi jëmi jamono mu nekk structure bo xamanteni depuis 2013 mu ngi fonctionner manam juroom juroom ñaari at ci tay Euh, kooku du kenn ku dul euh, ki nga xam ne moom moo di biram euh, Faye Birame ñu ngi lay nuyu Dakaractu vraiment di am mbégte dalal la tey daanak mën nañ ne sax yow yaa ñu dalal parce que normalement waroon na waroon na fekk émission bi tey ñu def ko bu yàgg fële au niveau de Dakaractu waaye tey nga dal ñu fii nga xamante ni moom moo di sa structure nga diriger lii di ASP. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor sécurité de proximité euh, tey yi euh, di ñëw di am ak yow waxtaan bu yaatu ci li nga xam moom moo soxal structure boobule ak li soxal aussi reew bi ci wàllu politique ak yu ni mel ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay nuyu sama xarit di nuyu aussi sa sa naataango yi nga bokkal liggéey bi di nuyu Serigne di sama xarit di nuyu aussi sama naataango yi fekke waxtaan bi mm-hmm. di leen gërëm leen sant leen ñaanal jàmm. di ko sàkku ci yéen di ñaan yalla aussi waxtaan wi fassiyene am amal solo askan wi. d'accord voilà. DG dañuy dugg euh, très rapidement dans le vif du sujet euh, tay euh, ñi nga xamanteni ñom ñoo di agent de sécurité de proximité yi li taxoon juk structure bi réellement mën na ni certes c'est des volontaires ñoo xamanteni tay dañoo engagé euh, dans une cause citoyenne. Euh, waaye tey bi ñu leen euh, euh, maanaam bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu commencé def liggéey bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu sécurité de proximité ba ni gi tey ñu ngi koy wéyal maanaam juróom-ñaari ak ci tey mu am lu fi jot a xew muy mbas mi nga xamante ni moom moo di coronavirus frappé àdduna bi frappé aussi Sénégal waaye ñu jàpp ni am na aussi loo xamante ni waxoon nga ko récemment muy liggéey buñ ci ñoom buñ boo xamante ni ñoom jotoon nañ ko ci def est-ce que mën nga ñëwaat un peu ci li nga xamante ni euh, moom moo di liggéey boobu ñu amal euh, ci xeex mbas mi la. bon di leen gërëm ci di la sant ci laaj bu am solo bi di sant aussi njiitu réew mi ñu wóolu teg bi fi gannaaw ba ñu jaaree agence nationale pour l'emploi des jeunes ñu jóge nañ fa aussi jàll euh, agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. lu tollu ci ñetti at lañ def année def juróomi at AEME. fii léegi def fi ñaar fukki at muy kóoluteef boo xam ne ñu ngi ko ci sànni ko ci gërëm laaj bi am na solo ndax président moo ñu doon dogal changer paradigme ci wàllu sécurité intérieure surtout au niveau de sa composante sécurité publique maanaam créé ASP bi mu koy créé coow li bari woon na <clears throat> ñaari mbir waraloon ko bi jiitu mooy yokku kaaraange réew mi jàppale way takk der yi nga xam seen liggéey la leneen li mooy jox ay ndaw lu toll ci fukki junni opportunité ñu bokk ci ñuy tabax réew mi. mun naa ne ci tëng ci boo nekk contexte bu xaw a particulier daf parce que dafa toog euh, fekkoon mu am laaj bu am solo bu jóge ci askan wi ngir ñu yokk kaaraange gi donc ci benn contexte de de de de forte demande de sécurité la ak benn contexte de de de de sous-emploi parce que mu ngi doon jógeeg si au pouvoir doon ndaw juddu après les indépendances waxoon ci programme ni ndaw ñu ñoo ko yitteel gannaaw jigéen ñi ak dëkk kaw yi euh, nekk dëkk boo xam ne aussi ndaw yi ñoo fi ëpp ci lim. loolu moo taxoon mu samp kër gi mu sanc ko euh, kër gi nag bi mu ko sancee léegi amoon dañ liggéey bu am solo suñuy mission juróom la euh, maanaam bokk ci ñuy élaborer ak ñuy jëmmal euh, le plan national de lutte contre la délinquance bokk ci ñuy tëgg ñuy ñuy naal maanaam ak ñuy jëmmal également maanaam les contrats locaux de sécurité mm-hmm. en relation avec les comités départementaux de sécurité tàggat xale yi ci wàllu déontologie ci wàllu discipline ci wàllu yar ak teggin

nekk na royukaay ci Afrique nekk na royukaay ci addina parce que secret de proximité du lu bees dañ koy yeesal rek parce que en 87 dund nañ histoire policier radié yi soo demee ren dëkk fu mel ni Canada dañuy wax affaire Stewart soo demee France ñu wax ay gestion de flux ay police de proximité ak yeneen donc forme bu ñu changé mais forme bi day des day wane que kaaraange way takk der yor doyuñu te de plus en plus ak radicalisme bi ak terrorisme bi. ak les nouvelles formes de criminalité organisée ak le développement de la délinquance yooyu yëpp day tax nit ñi gën a soxla kaaraange ci àddina bi donc lépp lu ñu mun a def pour yokk kaaraange bi dafay am solo donc ci la président xalaat tey ci liggéey bi il y a six mois def nañ benn conférence régionale internationale boo xam ne fukki réew yi bokk CEDEAO ñoo ko sàkk woon ak Tchad ak Mauritanie ngir ñëw Sénégal jàgg suñu modèle de sécurité de proximité tey xale yi kaaraangee taxul ñu jël leen mais ñu ci bëri dañu am formation ñu ci bëri dañ leen tàggat fukki. parce que ci bëri boo xoolee euh, ñu bëri euh, effectivement ci fukki junni yi maanaam huit mille euh, jaar am nañ métier genn wàll gi jaar nañ service militaire bi ñu fi ñëwee aussi tàggat nañ leen lu toll ci ñeent fukki ñeent fukki fan ak juróom. partenaires nga xamné aussi dañu bi dañ leen di imposer ci convention aussi ñu donc taxul ci ci ci administration bi di nga gis que dañ leen di ci ci comme chauffeur comme assistante comme secrétaire comme archiviste comme comptable comme infirmier comme informaticien comme garde rapproché ak euh, préfecture. Vous avez un camp militaire, vous avez de short. Nous bon, les insérer progressivement dans les différentes structures. Parce conformément au décret portant création de l'agence, nous avons formé, nous recruté formé, nous administration. Donc, il y 2 2000 à la police, 1000 à la gendarmerie, 1000 dans l'administration territoriale, 2000 ASP au niveau des contributeurs locales. am 500 manam juróomi téeméeru xalé ci këru diiné yi ba ci Popenguine. d'accord mais li taxoon ñu soxla leen ci ndortel li mën na né dañ leen di jëfëndiko lu ko weesu lool nak day fekk seen jàng seen formation seen jaar-jaar mayé ko day fekk aussi ay manquement am ci service d'accueil yi donc xalé yi ngay bi ñu doon doy jéggi nañu ko tay bo démé ci quartier siri ñu nekk yépp euh di nga gis que bo démé fu mel damel di nga gis que pris location bi sax dafa yokk ndax sécurité bi fa xale ya indi ñu koy def aussi ànd ceeg police ànd ceeg gendarmerie en fonction ces zones en fonction de leur zone de compétence géographique mais concrètement euh, ci mbas mi lan la ci ASP bon ci mbas mi li jiitu moom mooy man sam bopp maa bind préfet département yëpp bi ma leen bindee man leen nañ dugal suñu unité départementale yi parce que département bu nekk dañ fa am benn unité départementale boo xam xale bi ko jiite am na bac plus cinq te ci ndorteel ASP la woon donc comité départementaux yi préfet yi jiite yëpp unité départementale ASP yi ñu ngi ci biir loolu benn la ñaar sécurisation convoi vivres yi ak sécurisation stocku vivres yi ak distribution vivres yi ak distribution de bourse de sécurité familiale yi ASP dañ ci am taxaw bu am solo maanaam jàppale way takk der ci respect couvre bi ASP yi dañ ci amal liggéey bu mucc ayib leneen li mooy sécurisation des lieux confinés ak risques yi ñu jël yëpp.

comme ay journaliste comme ay guide comme ay relais communautaire ci rajo yi nekk foofu ak yeneen ak yeneen ak yeneen so donc liggéey bi ñu def liggéey bu am solo la ci wàllu sensibilisation bi def nañ ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo dëkk yëpp entrée dëkk bi comme sortie dëkk bi lieu de rassemblement yi marché yi gaaru ceer yi

Euh, mën naa ne sax président daf leen yokkalaat ñetti at mu ñëw yokk ci ñeenti at yi ñu fi jot a def muy juróom-ñaari at donc loolu euh, tey ñoom bu ñu demee ba jàpp ni war nañ mën a euh, génn beneen vague ñëw est-ce que loolu du indi ay jafe-jafe wala mu indi ay tolof tolof ci ñi nga xamante ni ñoom jot nañ fi lu <coughs> basé wu fi ba pare est-ce que mën nga leeral tuuti lan mooy jafe-jafe bi foofu. sa laaj bi dafa am solo te day wane ne gëstu nga ci kër gi lu bari avant ngay ñëw loolu neex na ma trop parce que xam nga waxtaan moom wax dëgg ca la. bu ñu nañ lépp nañ ko tekki dëgg xale yi ay mag ay magum jëmm lañ xaatim ne dañuy dugg servir toute la nation sans contrepartie financière duñu ay bénévole mais ay volontaire lañ ñeenti at donc normalement ñeenti at yi bi mu jeexee dañ leen waroon yeewi légalement jëlaat ñeneen soo demee armée noonu lay doxale soo demee fu mel ni Corée fu mel ni Japon dëkk yi nga xam dafa am volontariat dafa développé noonu lay doxe am na dëkk yoo xam ne sax jaar volontariat obligation la pour nga dugg fonction publique donc xale yi appel à candidature publique la ñu def def enquête de moralité jël leen si la base de leur projet professionnel ñu am casier judiciaire yu wóor am métier am jaar-jaar arme ñu recruter leen démocratiquement tàggat leen ñu war a def ñeenti at ñu yewi leen président mi am xalaat bu yàññi boobu nga xam ne tey royukaay la ci àddina ak ci CEDEAO ñeenti at yi bi mu jeexee président ne waruñ leen yeewi ci mbaaxam moom moo leen yokkal ñetti at donc ñetti at yooyu ci première génération muy 2013 parce que ñaari génération la 2013 ak 2017 loolu moom juróom-ñaar at yooyu nga wax moom mooy jeex décembre taxul ñu baleen ndax encore une fois ay xale lañ yu am jom yu am ngor yu tollu seet diggi ndaw Ah, bien que ñu ñëpp foofu lañ jaar buñ jàngee ba pare di stage chômé en prestation de service balaa ngay am lu taxaw. donc am ngeen am na lu ngeen prévoir pour ñooñu. bu baax te loolu yëpp ci instruction njiitu réew mi la ci mbaaxam ci instruction aussi suñu jëwriñ muy Aly Ngouille Ndiaye def nañ ñaari atelier yoo xam ne dañ ci invité ñëpp ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu kaaraange ak ñëpp ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu liggéeyu ndaw ñi muy secteur boo xam ne xam naa ci as tuut ndax def naa fa ñetti at ak suñu partenaire yëpp. bu ñu dajee waxtaan conclusion travaux yi jox nañ ko kilifa yi comme paaka nag kenn du ko jiitu ñu mbaram dañuy bàyyi kilifa yi ñu njëkk ñu ci communiqué. Mhm. mais jàppal na tey ngent at la waroon def ñu yeewu leen jël ñeneen. Mhm. ngent at yi geex na njiitu réew mi yokkal na leen ñetti at ñetti yi yaa ngi waaj a jeex subaa ngoon guddeeg bëccëg nelawatuñu am nañ comité fii ci agence bi am nañ comité au niveau du ministère de l' intérieur ñu ngi waxtaan def nañ ñaari atelier yoo xam comme yoo xam ne ay kàngam dëgg lañ fa woo ci wàllu emploi ak wàllu sécurité ak suñu partenaires yi conclusion travaux yi xale yi encore une fois ay modèle lañ ay repère lañ ay référence lañ dama ne même ci université yi ak ci en entrepreneuriat yi ak ci cours leadership yi dañ leen war di woow ñuy jàngale la confiance en soi en termes de développement personnel ndax juróom-ñaari at nga jël sa jëmm jox ko àddiya askanu lëmb di leen liggéeyal te kenn fayu la c'est vrai que au delà defal nañ leen prise en charge médicale quatre pour cent am nañ mutuelle am nañ cité kër góor euh, fii cité kër góor gi am nañ centre de centre médico-social. bu leen di jël en charge à 80 vingt pour cent ñoom ak seen jaboot. am nañ région Dakar ak Saint-Louis ak Mbour ak Kaolack la gratuité du transport boo xam ñun ñooy fay vignette yi donc ñoom ñëpp kenn fay ko transport. ñu ngi liggéey aussi pour ñu généraliser la gratuité du transport. sur toute l'étendue du territoire national. donc pour bu loolu euh, aussi. Mhm, mhm kër gi fi genre centre d'incubation la dañ leen di tagat ñom ñep pour ku ci ne am métier balaa nga fiy jóge donc formé nañ ci ju bari ci walu ASP un ASP un métier tay gi ni activité ba mujjee def moy lancer ben moy moy tambali ben formation bu ñetti téeméer 300 jeunes au métier de stagiaire parce adina bi xam nañ ni légui stade yi. Mhm. FIFA soxlaatuñ fa danaka policiers yi ak gendarme yi ci ginaaw lañ wara nek en back office bu affaire compliqué nous avons gérer la prévention bi proximité bi alerte bi donc nous nous lancé des programmes de formation en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, en partenariat avec le centre de formation au métier du sport, hein, l'institut de formation au métier du sport, formation en FIFA,

ñi nga xamanteni ni ñoo fi nek bu ñeneen ñi ñëwé sax ñoñu dina am peut-être ci euh, dina am ben euh lu ngeen prévoir manam comme insertion ngeen insér ngeen insérer leen ci yenn structure ñu mëna a seen bopp parce que tamit buñu ñu fàtt ni ay boroomi njaboot lañ wala ñu nek ñoo xamanteni ni am nañ ay responsabilité ci seen kër et cetera. ay jambar lañ kenn amul seen pay di ñaan askan ñu ngeen leen jox cër ndax suñu rak lañ suñu doom lañ suñu jarbaat lañ ñu nangu loo xam ne peut-être ñu bari daanuñ ko woon nangu bu doon ñoom mooy di liggéeyal réew mi su suba ngoon guddeeg bëccëg te kenn fayu leen encore une fois njiitu réew mi am xalaat bi moo leen yokkal ñetti at. d'accord te parewuñu aussi pour bàyyi leen. Mhm. ñu ngi leen di jàppale. Mhm. ñu ngi xalaat fu ñu leen jëmee ëllëg incha allah. d'accord euh, bu ñu ñëwee euh, justement euh, ci emploi wàllum xëy mi tey yow jiite woon nga ANPEJ xam nga bu baax li nga xamante ne moom moo di question boobu waaye tey. bu ñu xoolee euh, sur le terrain jooytu bi bëri na trop ñu ngi jeunes yi bon euh, ku ci nekk yaa ngi jàpp ni peut-être euh, li nga xamanteni ni nga ko yegg waron ko mën am peut-être ci koom walla dara pour dimbali sa njaboot dimbali sa bop dafa dess manam xey gi tay est-ce que depuis sept ans bi fi ASP nekké japp ngeen ni xey mi ciop soppeku na amna ciop coppite. xey gi amna lu bari da ci soppeeku positivement. parce que comme li ma koy waxee waxtaan aussi wax dëgg ca la yaa ngi dégg euh, bi ñu ñëw au pouvoir d' abord ñun dañu démissionné ñu ci bari loolu c' était une grande première dans l'histoire politique du mhm. Sénégal mhm. à part le contexte du naufrage du Joola jafe na ay hommes politiques yu nangoo tekki seen i ndombal tànk mhm. mu ngi leen di tuubal sax dañuy ngooñ ci nguur gi bañ a mettre euh, à l'aise la justice par exemple ñun dañu tekki suñuy ndombal tànk mettre en place suñu parti politique jiital yàlla ak sénégalais dem fépp wax ak ñëpp muy km. élaborer projet de société soumettre à l'appréciation du peuple souverain sénégalais ñu sommes ñu réew mi am ay engagement yu ñu jëloon mooy jàppale un yi ci walu liggéey man jaar agence nationale pour l'emploi des jeunes ñetti at li lay wax bo démé inspection du travail da nga gis contrat yi nga c'est des contrats en bonne et due forme enregistrés au niveau de l'inspection du travail engagement yi nga xamné président nous avons eu l'emploi. Maintenant, nous euh, avons C'est un pays majoritairement jeune. Chaque année, il y a 100 000 à 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Euh, euh, euh, demandeurs d'emploi. Ils sont sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un problème universel et mondial. Il y a un l'emploi chômage. Il y a un Nous avons l'héritage héritage, <coughs> on n'a pas la culture entrepreneuriale so demee dans les pays anglophones ak yeneen dëkk yu bari Allemagne entreprise familiale motax ñu développé wu mais ñun on a la culture française quoi stabilité la ñu gëm fonction publique retraite paisible te àddina loolu yoratu ko ndaw da nga wara am esprit entrepreneurial esprit innovant esprit créatif esprit d'imagination am confiance en soi gëm yalla gëm sa bop créer comme li ngeen def créer cette benn di euh, këru tasum xabaar ay xalé ñu ndaw di ci liggéey di ci daan sen doole ils gagner sa dignité donc on peut plus attendre tout de l'État L'État lu mu mun mettre les conditions appeler le secteur privé ba nga mais l'engagement est président encore une fois dépasser sur la base seulement des des emplois parce que la différence entre travail et emploi l'engagement sur les emplois dépasse. Si on a une inspection du travail xam ci dara boo ci ASP boo ci boole les travailleurs du ministère de la santé xam ci dara boo ci boolee les travailleurs du secteur informel xam ci dara boo ci boolee les travailleurs dans le domaine du commerce et de l' xam ci dara boo ci boolee ñi nga xam ñu ngi liggéey dans le cadre des activités à haute de main d'oeuvre comme les les les grands chantiers engagement yi ñu jëloon dépassé ko ça veut que nag le problème est réglé mm-hmm. le problème est là encore le problème reste entier comme dans tous les pays du monde mm-hmm. Mm-hmm. mais li may lancer un à la jeunesse parce que ñu ñëpp jaar nañ ci da ngay jàng lu chômer voilà prestataire stage balaa ngay am lu dëgër mooy nañ gën a gëm suñu bopp état mu ngi jàpp mais nañu créer nañu créer suñu bopp. d'accord c'est-à-dire que jël ay initiative dem fu mel ni ANPEJ fu mel ni DER fu mel ni FONGIP

Euh, bari lol ci bop askan wi ñu bëggoon ci nga ñëw ci yow wax ñu prérogative ki nga xamanteni ni modi euh, agent bi ak euh, fi mu wara yam ak li nga xamanteni ni lolou mom moy champ d'évolution ak champ bi nga xamanteni ni fa la wara défé ligéyam xam nga li am solo ci àddina. Mhm. souvent dañuy wax au-delà des des textes le plus important c'est la nature des hommes. sa am solo. am sax benn xarit laa doon waxtaanal mu ne ñun sénégalais yi eh, Hercule ak Abdou Diabar sax bu ñu fi ñëwoon pour jiite ñu dina métti trop nañu xool xale bi taxaw ci bedd bi kenn fayu ko mission bi muy def yow mi mu koy defal ban intérêt nga ciy am. mais est war na tax mu exagéré tamit. amul kenn ku ci exagéré comparé au reste du pays au reste des secteur du pays fukki junne xale lañ ma dënk c'est l'agence la plus peuplée dans ce pays da nga toog ñetti weer doo gis kenn ku ci def dérive wala ku ci def dérapage. demal ci ci ci yeneen secteurs yi euh, demal ci yeneen secteur du ma lim benn secteur. da ngay euh, li ngay wax ni ñu bëri peut-être xëy na ñu ngi doon xaar au moins nga ni euh, voilà ñoom lii lañ war a def wala nga xaw a sax. au moins mais peut-être boo jëlee seen défense de cette manière. xëy na dina xaw a mais dama leen non bu fekkoon man bu mu ñëwee fii ba d'abord mission yi juróom la wax naa ko sànq moom mooy participer à à l'élaboration et la mise en œuvre.

xam nga dafa am euh, boo xam nga boo jëlee sa sa doom nga dénkaane ko dafa am foo ci mën a yem c'est vrai que rapport yi police ak ASP desoon na génn iwlewu parce que man ak sama naataango Ousmane toog nañ waxtaan am séance de travail ministre bi ñëw na seet suñu donc ubbeeku nañ jiital nañ woyof mais dama bëgg nit ñi comprendre leen fukki judday xale boo leen yoree ñu toll seen diggi ndaw di liggéey te kenn fayu leen nañ leen yërëm d'abord jox leen cër gi ñu yellol d'abord yaa ngi mo gën ñuy xol lu ñu def ñun dóore wuñu saaga wuñu armé wuñu on est dans la prévention on est dans l'alerte on est dans l'information buñ jaxlé wo police wala gendarmerie maintenant dëgg suñu décret bi créé ASP mom mo ñu sas moo ñu moo ñu seuf ñu ñu recruter tagat jox police jox gendarmerie moo ñu jox ñaari junne xalé police ñaari junne junne gendarmerie maintenant bu ñu joxee police ak gendarmerie dafa benn convention bu ñu dañu wara a daje évaluer corriger yéy ngi d'accord li ñu def yëpp def nañ ko donc même biir police dafa am les agents ak les les les les dafa am ñoo xamlé amna am wara fu ak fu warta ag d'accord yéy ngi juste pour dire que tay je défie quiconque ASP semaine bii rek am na benn euh, compatriote bu bu yàlla ma yàlla ba bu bëggoon xaru ab ASK boo ko sauvé bu Philippe Maguilène Senghor am na soxla su doon mucc. Mm-hmm. bu doon wasit ab ASP boo ko sauvé. Mm-hmm. barke dem lañ ma woo mission au euh, mosquée omarienne ne ma deux millions la ab ASP for ak ñàkkam ak ngoram mu delloo ko donc nañu gis li li ASP yi def li nga xam ne juumte mënut a ñàkk ci liggéey. ku ci nekk ci ñun matuloo. koor boo jël am na ay brebis galeuses. d'accord ñiy raas dem mun a ñàkk par rapport ak ñi gàmmu si mais bu ñu comparé doobur bi ñu dënk ak fi ñu toll ci ay at ak sacrifice yu ñuy def dérive yeeg dérapage yi c'est insignifiant par rapport ak apport bu am solo bi nga xam ne indi nañ ko dans toute l'administration. muy tribunal muy intérieur muy administration territoriale muy këri diine yi muy gox bokk moomeel yi gox gox goxaan yi muy police muy gendarmerie partout c'est clair da ngay gis ASP ñuy liggéey suba ngoon bu dégg bëccëg c'est vrai bon gis nañ leen euh, maintenant maintenant juum nag mënul ñàkk mhm. des fois ñu am ay quelques dérives ay quelques dérapages mhm. tàggat nañ leen ci wàllu déontologie wàllu discipline d'accord saa yi bu ñu juumee aussi nañ leen recadrer d'accord te comme dañu am benn statut paramilitaire mhm. rigueur bi daf ci am solo yar geeg teggin ko aussi dañ ko jiital ci liggéey bi ñuy def. li ministre Aly Ngouille Ndiaye doon wax ay jamono euh, bon xëy na peut-être moom moo ko wax walla peut-être interprétation bi ñu ci def moo baaxul. Mm. waaye ñu bëri jàppoon nañ ni dafa ni euh, ASP yi après dañ leen di génne euh, maanaam daal di leen jox benn dayo boo xamante ni daal. bokkul ak peut-être dayo bi ñuy jox euh, maanaam dañ leen di extirper. décret bi bi bi sos ASP moom moo ñu imposé ñu recruter former jox police jox gendarmerie jox yeneen administration yi ay ASP pour jàpp jàppale leen seen liggéey. Mm-hmm. donc ministre yi mosul wax d'abord seet si nañu depuis sept ans. Mm-hmm. c'est la première fois ñu accueillir le ministre de tutelle ñu ko ciy gërëm di ko ci sant mu ngi ñu yombalal liggéey bi effectivement mm-hmm. donc c'était bi ñu waxee loolu. C'était une manière quand même de dire que faut qu'il faut qu'on mette davantage de l'ordre. Mhm. Il faut que rigueur D'accord. Mais il n'a jamais été question mhm. ASP de police ou à la gendarmerie. Parce que une présence imposée par le décret portant création et fonctionnement de l'institution. Il n'a jamais été question ASP du ministère de l'Intérieur.

cas militaire bu bu bu bu bu bu Ziguinchor. benn am na ay infirmier mais benn infirmier bi ASP la boo demee ci ci ci ci ci euh, commissariat de police ba informaticien ba fa nekk ASP la. d'accord ñu jeexal ci point boobu pour euh, aborder beneen euh, question pour jeexal rek ci question ASP yi. mën nañ jàpp ni ci tënk d'après li nga fi wax yépp xel mën na dal quant à peut-être leur leurs apports ak li nga xamante ni aussi ñu ngi koy liggéey ci waaye ci wàllu kaaraange. propos ASP l'ASP, c'est des prises à démontrer L'ASP a fait travail sur plusieurs plans ils ont apporté un travail quartier sur même le prix du loyer a augmenté Nous avons deux heures du matin n'était pas le cas le matin a des fesses. avant ñu eu des fesses, amu foon eu des ba eu a un mois ba y a armé parce que contexte beaucoup de réalité beaucoup donc Sénégal Sénégalais, xam nañ des ASP yi positivement maintenant dans tous les secteurs dans tous les domaines mhm. ay manquement a des erreurs bu ñu ñàkk ci mais encore une fois c'est des erreurs pas du tout significatives par rapport ak apport bi ñu indi parce que les nous tollu sa diggi ndaw di liggéeyal askan wi ci fànn yëpp te kenn mhm. fayu la je pense que mérité une considération ak respect ak estime ak reconnaissance d'accord ñu wax ci actualité euh, jamono ji mbënn mi sonal nañu bëri euh. daanaka sax yow fofu ta fatik xeyna duñu gako ba peut-être xeyna amna lo fa lo fa indi nga mën ñu ci ñëwaatal waye tay buñu xolé globalement ciow li bari na torop te ki di njiitu réew mi dafa am lu fi waxon lolu euh, ñu bari doon xaar peut-être mu am benen discours wala mu am benen attitude peut-être bu xamante ni dina wutek lim fi wax parce que buñu déglo ay euh, vidéo yu yes amna lu fi waxone né euh, résoudre na jafé jafé yi ci ñanti at lolu dafa melni nit ñi téguñu ci seen bëtt xam nga euh, nit ñi ñu ci bëggul teg seen bëtt ñoo ci téggul seen bëtt xam nga mag bu naaj bi dal sa kaw nga né dalu sa kaw li ñu wax li ñu wax né né plus sûr amul amul amul dara lu lu ko prouver parce que gisuñu gisuñu changement oh, significatif wallahi gis nañ changement billahi wallahi tallahi gis nañu changement Mais en 2012 foire n'y école pas a d'elle, del dëkk bi yëpp dafa partout bi on a diagnostiqué la situation a mettre en place des plans décennales. décennal programme décennal de lutte contre les inondations amul pas de programme qui jaar tey Il n'y en a pas Le programme est fait Le mu donc bi on le programme c'était 2012 2022 boobu ak a inondation amul maintenant li am ren. même booy teg une loi da ngay wax euh, li ñuy wax c'est l'exception qui confirme la règle cas de force majeure amul fu mu amul catastrophe naturelle day am xanaa gisoo ay ay ay ay Katrina ay di xam ci yeneen dëkki développé yi lii boo demee Niger ñu ngi ci téeméeri moor boo demee Soudan ñu ngi ci mille moor soo mais tamit euh, séntu woon nañ xëy na président au moins am beneen disu mais bu taxawee naan mënuma téye asamaan ñun ñëpp xam nañ ni mënul téye asamaan si. keneen ku dul moom tamit mënu ko téye j'ai aimé le que c'est un discours gis nga non mais discours discours pour man c'était un discours inapproprié. en tant qu'expert en communication. je parce que peut-être. xam parce que des gens qui profitent de ces situations pour les politiser à outrance xam dans un en démocratie en démocratie l'élection est le baromètre. On ne peut pas mettre un pays dans une situation de campagne électorale permanente. Il y a, il y a, un, temps pour, la, politique, il y a un temps pour le travail. Nous avons démissionné, créé sur une partie de 90 000 km. On n'est pas des suivistes, on n'est pas des complexés, on n'a pas ramassé ce pouvoir dañu ko pratiquement fi danaka gisuma fi suivi parce que ñi dem ci déplacement. non non mais xam nga lan la non ñooñu dañoo pour compatir ak. population non mais écoute. Euh, euh, je respecte votre point de vue hein, parce que vous êtes expert en communication mais amna lu daw lu ma xam ci communication. Mm-hmm. gis nga quel que soit le prix à payer une communication doit être basée sur la vérité même quel que soit la facture à payer vous ngi en 2012 bu ñu nous mettre en place des plans, des programmes décennal de lutte contre les inondations. Nous avons vu ce qu'il y a. Demain, le Kermassar, demain, le Ferret et le Ferret. Maintenant, nous avons en 8 heures de temps, le samedi, Bobo, en 8 heures de temps, le Sénégal a reçu. Le Sénégal, ce qu'il a fait dans le Ndokoutaou, dans le Ndokoutaou, c'est ce qu'il a fait dans le Ndokoutaou. Qui n'est pas un navet. Maintenant, ce que c'est un an que tu dois faire, tu dois faire sur 8 heures de temps. Mais c'est une situation de, force majeure. C'est une situation exceptionnelle. Soit ici. Ousmane Sonko tout le temps bi nga euh, vraiment euh, donc inondation même rythme de construction de logement yi xam nga li xew du donc def ci inondation maintenant lu lu li lu lu cas de situation de force majeure, cas extraordinaire, cas exceptionnel. Là. Là, la Russie, là, les États-Unis, là, le Niger, là, le Soudan, là, le Côte d'Ivoire, là, le Mali. Il y 100 morts, 1000 morts, nous Il y a le soutien de nous, bien que maintenant, trop, nous avons vu que nous avons dit que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu Maintenant, le président nous c'est clair. Il y a 10 milliards au-delà du plan ORSEC. Pour 3 milliards, nous avons en vivre en matériel et un produit d'entretien pour euh, les les les les victimes des inondations. 7 milliards idem au niveau de du service national de de des sapeurs-pompiers au niveau de la direction de la protection civile service d'hygiène ak yeneen administration yi. taxawaay bi def def ko aussi ñu évaluer defal ko schéma bu donc je pense que quand même. ay schéma yu bees tamit mënuñ ci dëkk chaque à chaque fois bu ñëwé wara jafé jafé bi xam nga xam nga xam nga Sénégal am vision Sénégal pilotage à vie moi fi ça a am dit que kër entreprise réew da nga am que c'est da nga am vision vision lañ nekk mettre en place moi beaucoup nañ jëlee Sénégal fi mu toll 2035 ñu def un pays émergent comme les pays émergents comme ay Malaisie comme ay ay ay ay ay Inde comme ay Afrique du Sud comme comme yémen yaa ngi dégg fii lañ ko jëlee fii lañ ko tableau de bord bu

Il y a des questions d'intérêt national yoo mais tamit quelque part vous li ñuy wax. parce que juste dans le sens de bien faire. xam nga y a un écrivain qui disait que même si je suis d'accord avec vous, il xex ba nga am possibilité de wax sa xalat. moi je suis démocrate et libéral nous sommes dans un état de droit la liberté d'expression et d'association sont consacrées kum neex fa fu la neex wax lu la neex ki yar ak mais encore une fois dafa am waxtu politique waxtu liggéey politique nañ duma nañ leen ci élection yëpp ñu ngi ciy sant yàlla ak sénégalais yi amuñ jotu wax ju bari wéranteeg teesanteeg ay kilifa lañ dañ ñu yaakaar dénk ñu réew mi dañuy man huit heures laay xëy minuit laay wàcc chaque jour mosuma daw liggéey mosuma tardé lii rek biñ koy laata def soddu nañ comprendre maintenant ñoo xam ne euh, politique ay seen métier subaa ngoon bu dégg bëccëg nga wuti il faut que ñu ñi d'accord ne bëgg réew mi quoi société civile opposition syndicat ñoom ñëpp coono gi ñu daj ci réew mi ay politiciens lañ dañu yonente bi sax def na politique l'essentiel mooy na lalu ci dëgg te sell te jëriñ askan wi yaa ngi dégg ñooñu amuñ gis-gis pour réew mi amuñ programme pour réew mi ñun dañu am programme duñu parti politique de procuration te jëwuñ fii di wax dañu créé suñu parti politique démissionné war Sénégal ñu dënk ñu ñu am vision am programme di ko jëfe tey ku wax ak yàlla ak sa teraayu bàmmeel xam nga ne tey Sénégal dans tous les secteurs de la vie socio-économique def nañ ci jéego yu am solo. muy wàllu enseignement supérieur wàllu infrastructure domaine yëpp. amul benn domaine bu amul ay yokku-yokku yu wóor. yoo xam Sénégal yi ñu mun nañ ci teg seen i gët. maintenant waxkat yi moom kenn mu leen teree wax ñi nga xam dañ bëgg a jot ci nguur gi kut ko kut quel que soit les moyens il faut que ñu continuer wax. mais nañ ko laaj mais dinaa rey su ma jotee nguur gi dinaa rey ñi ñi fi nekkoon de 1960 à aujourd'hui ah man kenn mënu ma jiite kenn du ma jiite ah loolu yar ak teggin la nañu warmal nit ñi nañu jox cër sénégalais yi sooy opposé aussi nga teg ko sur la base d'idée de programme. d'accord DG daanaka li ñu amoon ci waxtu sax jeex na waaye du ñu peut-être euh, tàggoog yow euh, te waxuñu xëy na ci li nga xamante ni xëy na Macky Sall da ci def deux poids deux mesures muy jafé jafé mandat bi nga xamanteni ku ci wax lu ko neex mu teg mu baye la ci wétam nga gëna confortable ku ci wax lo xamanteni da nga japp ni peut-être euh, lolu mom moy gis-gis bu bu ci ñëpp am rek mu doxale nenen lolu gis nañ ko fi defe na lolu yow waro ko mën a bon xam nga lolu aussi yaakar la yaakaru ñen ñi la d'abord président président ci bopam mom non la wax non lay doxale xam nga yalla moy may ay miiru ñing ngi bërki démboo jaay lolu xam nga xam nga yàlla mooy maye. Mhm. ganaw suñu mérite personnel. président yalla da un parcours politique et institutionnel bu bu homme politique amul ci kaw temps je vais vous détailler exactement à travers les différentes étapes parcours politique fi mu ba fi mu parcours institutionnel fi mu jaar ba tollu fi mu ak position bi mu te ci nguur gi ci yar ak fi fi donc bu du wàcc mukk di wax ak ñëw ñu quoi leneen li am solo xam nga mooy lan mandat bu xam nga àddina avant ngaa choisir yaa moom sa bopp muy sa jabar muy sa diine muy sa métier muy sa tarixa muy sa parti muy sa kilifa tu es tu es quoi tu as le temps de de rassembler le maximum d'éléments d'information et d'appréciation avant le choix mais boo xasee tànn du loo moom loo bokk ak nit ñi la donc règle ya fay daw da nga koy respecter man ñëpp xam nañ ne ragaluma li may xalaat dama koy wax am ak ñàkk laa yemale yàlla laa gëm mais président moo ma doy ci njiit da nga wax ji moo ma doy ci ci modèle ci référence ci repère ci jaar-jaar. ba ci nga war ko soutenir ci troisième boobu éventuellement. bu fekkee mais non troisième mandat bi encore une fois sama parti politique waxagu ci président moo ñu yilif ñu ñoo nangu ne moo ñu doy moo ñu jiite mu ne bu ci kenn wax ci mbedd mi mais du ma ci wax leneen li ma ci yokk nag mooy. ñi ma déggagum ci wax ci dinaa la ci limal ñett wala ñeent ñeent joxewuma suma xalaat joxewuma suma xalaatu parti encore une fois benn professeur bu nekk université bu constitutionnaliste bu tudd Babacar Gaye laa dégg mu wax ci xam nga kooku àndul ñun jàppalul président politikul mu ne c'est un mandat ce serait un mandat légal constitutionnel Barthélémy Diaz qui est un ami qui est aujourd'hui un des plus farouches opposant de notre régime dégg nga li jox te hein? Sénégal c'est légal c'est juridique c'est constitutionnel Bamba Fall Medina le de Khalifa Salan, la àndal donc intellectuels opposants mandat un mandat lalu la mandat lalu constitution la mandat lalu droit la ñun waxaguñ ba c'est un débat sama xalaat sa rien consent sama xalaat ni ko sama kilifa bëgg rek laa koy waxee sa mbir parti kon moom nga àndal non ci lépp même bu fekkee loolu lay wax même su ma àndoon ak moom ci lépp itam te loolu gis nañ ni sax président de la république bi fi jógee euh. Abdoulaye Wade loolu bokk na ci li ko fi gën a jële non c'est très différent du du du c'est très jafe man troisième lañ ko doon non loolu mu ko doon force loolu benn benn kii la nu mu tudd benn benn point la ci li ko fi jële benn point la ci li ko fi jële loolu rek jëlewu ko fi Lol kese jëlewu ko fi de. Mhm. point la ci li ko fi d'accord yaa ngi d'accord donc même su ma àndul ak président qui lépp itam. Mhm. du ma dem ci penc mi wax fa ma ak moom ci parti bi la koy waxee mais du ci mbedd mi. d'accord euh, ñu terminer rek euh, gis nañ récemment ngeen def Ben déplacement bu ñuy bu ñu tournée économique d'après ni président waxee waaye gis nañ li fa jot xew ñu bari jàpp ni rassemblement la te li nga xamante ni moom la xeex ci ci mbas meeg yu ni mel jàpp nañ ni li ngeen def keroog waroon na lool ak li nga xamante ni war war na war nañ ko def surtout mu doon ay kilifa yoo xamante ni ñoom dañuy woote à chaque fois naan nit ñi nañuy euh, fagaru def euh, li nga xam moom moo di les mesures barrières et cetera est-ce que jalgati woo leen ci fànn. xam nga li am solo tey ci wàllu mbas bi mm-hmm. Sénégal moo jël deuxième position dans la stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid 19. Mm-hmm. après la nouvelle ñoo raw France ñoo raw Amérique ñoo raw Allemagne ñoo raw ñëpp yaa ngi dégg donc taxawaay bi nga xam ne kilifa yi waru dañ ko am ci mbas bi am nañ ko bi fi mbas mi ñooy ak léegi maanaam taxawu nañ le programme le le plan de résilience économique et sociale plan bu mucc ayib la le plan de relance de l'économie nationale bi nga xam mardi nañ ci daje waxtaanaat ci ay plan yu am solo la stratégie parce que planification mun na am solo quatre travers les résultats obtenus Tay, à la fin le Sénégal est deuxième dans le monde c'est un magazine très sérieux de Foreign Policies basé aux États-Unis moom moo ko maintenant gars yi un bu arranger. ne politique, politique politicienne politique bu la ci politique bo xamné askan wi waye sa sa bakkan sa nafsu kessé dong rek mm-hmm. mo la donc li am solo moy président amul fenn su mu nañ mobiliser wala nañ ko accueillir loolu nañ ko ko nangul maintenant militants yi nag bu ñu xëree accueillir ko man yóbbu naa 500 masques man kese te maire baa nga fa ñeneen na nga fa am na autorité yi ñoom la yu nekk ministère de la santé ñoom El Hadj Touré ñoom Ngom ñaa ak ñeneen mhm. ñoom Cheikh Kanté ak ñeneen ak mhm. man kese yóbbu naa 500 masques man kese ambition Birame Faye ci te du ma fa euh, te responsable euh, bari nañ fa donc benn président waxul kenn mu accueillir wala mu mobiliser. militants yi ñoo xër seen xuru bopp mobiliser accueillir ko respecter règles barrières yi. maintenant des fois li mu def rassemble parce que boo xoolee cortège am bi rek déjà ñooñu rek déjà. Euh, non xam nga économie mun santé mun ta dem sans économie mais économie mun ta dem sans santé. tournée agricole bi tournée bu am solo la ñu ngi ko ciy félicité c'est la première fois campagne agricole toll ci 60 milliards. ñuy emblaver ay ay ay ay superficie yu bari diversifier les productions donc sous on va atteindre inshallah, notre l'autosuffisance alimentaire. d'accord mën nañ ni Birame euh, Faye am ambition au niveau de la mairie de Fatigue. am ambition Fatigue. Hmm. am un projet pour Fatik. bu ci sama parti àndee te waa Fatick ànd ci. xanaa ñu bàyyi rek euh, avant ñuy tàggatoo sax ñu bàyyi la nga euh, tàggatoo yow d'abord ak sunu mbokk internet yi Dakaractu bon d' abord gërëm leen sant leen parce que opportunité de communication ngeen ñu jox ñu mën a euh, wax ak askan wi gërëm suñu nawle yeeg naataango ñu bokk liggéey bi di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq parce que wax aussi dafa xaw a doy waar des fois mun nga juum des fois mun nga tooñ koo xam yoonam sax nekku ci ñun ñëpp Sénégal ñu tax a jóg di nuyu aussi suñu mbokk internet yu Dakar Actu di leen gërëm leen sant di gërëm aussi kilifay Dakaractu sama comme ñoom Serigne en tout cas euh, kàddu yooyu laa bëggoon yëkkati di leen sant di leen gërëm bu baax yàlla def jàmm Sénégal yàlla def yokkute euh, président aussi lu mu bëgg yàlla defal ko ko. ñu jaajëfal euh, bu baax di leen jox dig daje très prochainement ci seen beneen numéro l'entretien jërëjëf.